ay ayca mbokk internet yi nuyuwaat dañ leen bu baax a baax ginnaaw benn euh, pause ngir rek dugal soxna jaara borom xibaar yi ah gis ngeen ko ni ma leen ko ni ma leen ni ma leen ko diggee noonu du ma ci teg benn baat dama leen di bàyyi rek ngeen ngeen admiré ko soxna jaara nuyu naa la. Jérôme nuyu naa la. Djibril la peuple sama xarit bi. Euh, ci ci ci ci Caka en direct bi. <laughs> waaye ñoom ñooy def seen appréciation boobu parce que parce que noonu la demee waaw yow sama xarit nga xam nga yéen samay xarit ngeen samay góor ngeen nan lay demee nii lay mën a demee nag comme nañu koy faral di defee nga xamante jamono ji ñu ngi teewlu seen kàddu yu jëkki leen xibaar yi nga xamante ni Jérôme moo fi daal di rek jot a ruuse ma dem ah, taxawal man kañ daa am message bu ma war a liir man message maa ah. maa mayam foofu xaaral xaaral Jérôme Jérôme baal sànni xeer yi waaye dañu koy daal di dooree ak lu ñeel mbirum Sweet Beauté gis ngeen euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci sama ginnaaw aji sa Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni ay avocat wu Ousmane Sonko mhm. daat nañuy saisiroon lu ñeel euh, chambre d'accusation mhm. ngir ñu daal di rek euh, addu jëm ci décision bi nga xamante ni juge bi daat na koy jël yóbbu mbir ma ca mhm. ñoom ñu ne nag ginnaaw requête bi ñu defoon jamono juñ toll nii chambre d'accusation ginnaaw bi nga xamante ni rek gàntal na lu lu ni mel ñi di ay avocat wu Sonko fas yéene nañ daal di rek saisir lu jëm ci wàllum cour suprême mu mel ni sax seen débat bi tey ci loolu la mhm. daal di tënku zéro mi ngi noonu mhm. ñu àddu wax ci leneen ba tey euh, ci mbirum euh, euh, mhm. maanaam maye deret waaye mu mel ni mbir mi mujjewul antu ci boobu lay hôpital ginnaaw bi nga xamante daal ñu ngay xam ne ni kii di directeur bi dafa daal di ba loolu moo tax lu jëm ci mbirum eh, don de bi mujjewul woon antu mu nekk mbir mi nga xamante ni militant wu Pastef yi mer nañu ba futtu di ko ñaawlu di xam ne ni lu ni mel daal ñoom mënuñu ko comprendre saa su nekk ci diwaanu hôpital boobule voilà mi ngi noonu ci hôpital boobule dañu doon sàkku ngir ñu may leen deret tey ñu jug di dem di maye ji deret ñu gàntal leen lu ni mel di xam ne ni daal directeur ba nekk fa ba tax na loolu moo tax journée ah, boobule mu jëwul ant mu nekk mbir mu doy waar fa ay poste de sang mhm. parce que am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi fay ñëw di di fa muccee di muccee effectivement di manqué deret mhm. am ñoo xam ne ci soog yi ak lu mel noonu mhm. ñu ngi ñu ngay manqué deret ñoom ay doomi aadama doomi Sénégal bu ñu xool ne ay ay ay Pastef lañu wala ay kii lañ mais nañ xam ne doomi réew mi lañ ñoo pare ngir joxe seen deret ngir sauver ay vie

dafa ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer loolu donc lii sa c'est du sabotage la élan élan politique bi nga xamante ne moom mhm. moom moo nekk ci ginnaawam loolu la ñuy bañ ñu am aura ndax geste bi mhm. mais ñii ko soxla parce que ñii demuñu hôpital ba gis ñi nga xam ne ñoo soxla deret moo tax ñuy caaxaan leen mais te dinaa la wax benn affaire day tënku ci benn affaire quoi la fois passée mhm. euh, boori Bawal banque de sang bu Diourbel dañu manqué deret bu di wër ci hôpital yi weekend passé dañ ma woo pour ñu def caravane de sensibilisation ngir population mhm. bi génn dem maye ji deret les sages-femmes du département de Bambey daal di dajale population bi yépp ngir maye deret ca université Alioune Diop bi di ci solliciter ñépp bàyyiwuñu kenn mhm. mais loolu nag loolu bu demee ba réew mi toll foofu politique tax ñu koy ñu koy ñu ñuy gàntal yu mel noonu donc Sénégal war nañu war nañu xoolaat seen bopp parce que xanaa la ñuy béy comme comme gars yi la ñuy wax ne léegi lu ñu def parce que challenge la mm. challenge la mais genre lii la mais mais à Mbacke neuf cent war a fësal Mbacke Mbacke neuf cent xaw ma ñaata poste de cent lañ la léegi léegi dama la léegi élan politique boobu loolu lu ñu profité wu ñu ci ñi nga xam dañuy kujj ci wàllum politique ñoom ñu def noonu ñu def noonu waa benn bokk yaa ñoom tam ñu def seen seen challenge ku def def challenge am na solo trop moom vraiment en tout cas mi ngi noonu daal mu nekk mbir mi nga xamante ni jamono ji ñëpp ngi koy koy daal di ñaawlu ci diwaanu Kolda ginnaaw na leen mm-hmm. lu jëm ci don de sang bi nga xamante ni ay militant wu Pastef doon nañ ko foofu daal di rek mm-hmm. bëgg a mm-hmm. ñu xam leen di daal directeur hôpital boobu leen nekku fa ba tax na lu mel du du mën a nekk ñu wax ci leneen lu ñeel euh, Ousmane Sonko ba tey la ñuy daal di desen yi xam nga ne leader u Pastef bi nag euh, saa su nekk xibaar yi daf ciy saf sàpp euh, benn nag ki nga xamante ni mën nañu wax que ni spécialiste la en communication du wuyoo ci turu docteur Alassane Ndao dafa analyse maanaam jàngat bu am solo ci leaderu Pastef bi lee ñeel ak digganteem ak yi nga xamante ni ñooy kër kilifa diina yi maanaam tarixa yi mhm. moom nag li xamle ni mooy ni jamono yi yu mujj yi gis nañ ñi nga xamante ni peut ñoo faxe ci parti au pouvoir bi di jéem a jaxase xelu nit ñi ci diggante euh, leaderu Pastef bi ay militant am ak yenn ci këru kilifa diina yi mhm. ci projet yi nga xamante ni ak programme yi nga xamante teg na ko mu ne loolee nag gis na ni Ousmane moo ci gën a jaaruñu maanaam dañ xamante ni respecté wul kilifa diine yi respecté wul lool li nga xamante ni mooy aaday Sénégal mhm. mu ne nag loolee li mu ci jàngat jàngat bi mu ci def mooy ni Ousmane Sonko yaa ngi koy wax lu ñaaw waaye teewul nit ñi ñu ngi koy gën a bàyyi xel mhm. am na ñi nga xamante ni sax peut-être bàyyiwuñu woon xel Ousmane Sonko waaye la fekk nga koy wax ju ñaaw mhm. dafay tax nit ñi di ko di ko gën a gëstu di xam kii mooy kan mu ne nag loolee euh, Ousmane Sonko moo ci gën a rek bénéfice mi nii na def nànk bu baax ndax nag euh, juum bu mu juum rek. Mhm. ñu faxe ci opposition ñu faxe ci pouvoir bi. dinañ ko daal di utiliser ngir rek mën ko daal di rek euh, mhm. tënk ci loolu ba nga xamante ni rek dafay euh, mën a wàññi ay points yu bari ñu àddu wax ci leneen Ahmed Aïdara moom la nag yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci leaderam bi di Malick Gakou di xam ne ni daal présidentielle 2024 yi ñu jëm Malick Gakou mooy profil bu baax bi maanaam kenn gënu ko yeyoo mu nekk président de la République toll ni Malick Gakou ñëpp xam nañ ko fii ci Sénégal mhm. euh, ci nga xamante bëgg bi nga xamante ni bëgg na ko réew mi mhm. ba tax na daal moom mi le ma ngay xam ni leader am bi lee di Malick Gakou nañ ko daal di rek voter ndax jàpp nañ ni am na jaar-jaar ak woy bu rafet fii ci Sénégal ba tax na mhm. daal jàpp na ni euh, kenn ko gënu koo jekk mu nekk président de la République loolay di kàddu maire bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara loolu gisoo loolu ah. <laughs> doy na waar. am na xam nga am na commentaire yoo xamante ne mënu ma ko wax. vraiment ndax wàllu wàllu politique la. vraiment <laughs> ñu daal di àddu wax ci leneen métti El Hadj Diouf nag jamono ji ñu toll nii ginnaaw ba ñu ko suspendre moom nag dina daal di jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni rek ñoo ko sanctionné woon moom mi ne nag ginnaaw bi nga xamante ni ni ki keroog gis nañ mu def benn vidéo bi viral ci réseaux sociaux di wane ni dara jotu ko. Mhm. waaye moom mi la nag ci wàllum sanction boobu maanaam suspendre bi ñu ko suspendre ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum liggéeyam moom mi leen nag dinañ ko daal di rek jugé maanaam mu xam fan lay mujjee ak ay gëtam. bon ndax xam naa moom. jugement boobu de te li ma gën a métti mooy ci xam nga gars yi ñu ngi doon def benn amalgame naan maître Ciré Clédor Ly ak euh, Bamba Kassé ci kii ci kii bi la ñu bokk nee naa leen ça n'a rien à mm-hmm. ñoom ñëpp ce sont des mm-hmm. ñoo ñoo bokk ordre. Mm-hmm. tu vois. donc dafa mel ni tey policier bu def bu bu jéggi yoon policier moroom policier war war koo jàpp est-ce que dina xool ne kii sama moroom policier la mm-hmm. déedéet day xool li nga xam ne moom la ko yoon may su mm-hmm. mm-hmm. la yu bari yi nga xam ne def na ko ci mbirum Sweet Beauté yi nga xam ne def na ko ci seen seen njiit mi ngi noonu moo tax ñu daal di koy ko daal di rek euh, maanaam jugé mu xam fan lay mujjee ci mbir moomu le kay man daal vraiment vraiment nag vraiment nag bëgguma bëgguma gars yi gars kawam de trop quoi xam nga maître tamit. mais nag boobu jugement zéro dina a métti. waaw nan genre tey suñ par exemple damay kii nii rek damay analyser rek tey suñ ko mhm. suspendoon exemple. Mhm. dañ naan ñi nga xamante ñoom ñooy avocat Ousmane Sonko. duñ ne ordre ne ay avocat Ousmane Sonko la ñuy wax. loolu la ñuy wax dañ naan mhm. bu boobaa ñoom ñoo sooke la nga xamante ne nii mooy suspension. effectivement. te boobaa parce que dafa am projet boo xam ne dafa dox seen diggante alors que ça n'a rien à voir. parce que métier moo gis dafa am foog ñi nga xamante ñoom ñoo fa nekk. ngir régir métier mi. dafa mel ni tey waa CORED bi nga xam ñoo fi nekkee pour journaliste yi. Mhm. mais noonu la fi ordre d'avocat nekkee noonu la fi magistrat nekkee mais c'est ça. vraiment. en tout cas ngi noonu daal maître daal mi ngi noonu l'avocat du peuple l'avocat du peuple. <laughs> ñu daal di àddu wax ci leneen euh, zérom wax ci Pape Alé Niang moom journaliste d'investigation bi nag dafa daal di posté ci page Facebook am. Mhm. Euh, di wax euh, suñu nguur gi fi nekk ak rapport maanaam link yi nga xamante ni am na ko dëkk bi ñu naan Israël mu ne loole jamono ci ñu toll nag xelam daf ci daal di teey ba tax na daal mu ngi xam ne ni suñu digganteeg Israël war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ndax jàpp na ni suñu gouvernement bi fi nekk dafa dafa dafa lëkkaloo ak ñoom ci ay mbir yu bari yi nga xamante war nañ ci daal di taxaw def ab jànget bi ci njëkk mooy ni bu ñuy sàcc lu jëm ci wàllum élection ak yeneen yu nu mel mu ne Israël tur Israël dëkk bu ñu naan Israël turam daf ciy dugg bu baax lu jëm ci wàllum arm yi nga xamante ni ñu ngi koy jënd mhm. euh, tur dëkk bi di Israël da ngay dégg ni turam daf ci daal di nekk ak yeneen yeneen nga xamante ni moom journaliste d'investigation bi daal dina koy lim ba tax na daal jàpp na ni euh, suñu digganteeg euh, Sénégal ak Israël am na lu leen tënk li nga xamante ni wala am na lu leen boole li nga xamante ni war nañoo taxaw saytu ko def ci jàngat lëkkaloo nañu daal lëkkaloo nañu ah mais tamit foog ñu xam tamit xam nga des fois ngay dañ jël ci certains yenn ay pays mhm. dafa sanc yenn yi nga xamante ne ay bërëbu liggéeyukaay moo mhm. ci mel ni ay Panama mhm. xam nañ ko Suisse ay wàllum banque Israël itam noonu lu mel parce que xëy na yow entreprise bi nga xam ne yow moom nga bëgg a tijji. soo ko mhm. tijjee Israël xëy na fa lay gën a dox. Mhm. parce que ñu fàttali ne moom il a fait allusion aux armes ce sont pas les Israéliens en tant que tel. Mhm. wala état israélien en tant que tel. mais ay sociétés yi nga xam ne ñoo basé foofu. voilà mais xam nga problème li ñu booleeg. ñooñu dafa baaxul parce voilà. ah. dem na ba wax ni sax am na am na am bi nga xamante ne fii ci Sénégal ay ay euh, euh, waa Israël ñoo ko ñoo ko def fii ci Sénégal société boobu lu muy lu muy def mooy que ni. di mhm. mettre sous écoute euh, ñi nga xamante ni ñooy peut-être ñi nekk ci Sénégal maanaam opposition bi ñu ne loole ba tey waa Israël da ngay da ngeen da nga leen di dégg ci dil boobu lu jëm ci wàllu arme yu illégal yi da nga ciy dégg turub Israël moom daal jàpp na ni Sénégal ak nguurub Sénégal ak nguurub Israël. ren ñu ngi def benn dit bi nga xamante ni jàpp nañu moom war nañ cee taxaw def ab jàngat. doy na waar d'accord ah moom loolu la dénoncé daal si page Facebook am. doy na waar. <laughs> ñu daal di àddu wax ci leneen Jérôme ah, ci mbirum fait divers la ñuy daal di waxtaanee fële foofu ci tuubaa nag. Mhm. TikToker bi lay di wuyoo ci turu Noble moom ngeen daal di gis noonu. Euh, ci ci écran bi euh, moom nag euh, ginnaaw bi nga xamante ni Serigne Mountakha Mbacké jëloon na ndogal jox ko ñi nga xamante ni ñooy bàyyi Fall ngir ñu laa di mën a yaatal Touba. Mhm. dindi fa place yu bari yi nekkoon ci marché ocas bi ak yeneen ci mbeddi Touba yi. Mhm. ñu gën koo yaatal ci loolee nag. moom mi lay di tiktokeur bi lay di noble fa yëkkati woon ay kàddu yi nga xamante ni euh, neexul benn yoon yi nga xamante ni ñooy bay faal yi ndax jàpp nañu dafa daal di rek euh, jël ay kaddu maanaam kàddu yi nga xamante dafa xaw a ñagas ci dégg-dégg jëmale ko ci Sëriñ Muntaxa Mbàkke ci loolee nag ni ki démb bàyyi faal yi dañ ko daal di attaqué ah. ba police moo ko daal di mujjee rawale ñu daal di sax nag taal li nga xamante ni mooy otom ba tax na daal moom ni ki démb moom mi lay di euh, noble gis nañ ko mu daal di def vidéo xam na ni rek dañu ko daal di euh, ko rek daal di rey la sax wax ndax nag dañ na ko dañ lay daal di rey otom bi nga xamante ni ba mu dawee fa la ko bàyyi Baye Fall yi taal ko mu nekk mbir mi nga xamante ni di depuis démb ba tey nag euh, yooyu lay vidéo euh, viral na lool ci réseaux sociaux yi. gis nga doy na waar di wax mhm. gis nga wax. bal fatal la bal fatal la. soo defee génn rek génn te kenn xamul mhm. fu muy dal te aussi am na ñoo xamante ne gis nga dañoo dañoo xër ci seen i sëriñ. Mhm. par exemple yow yi nga xamante ne xëy na ngay toog di xalaat naan di waruma koo def ñoom xamuñu loolu. dëgg la parce que ñoom dañuy offense lañ ko parce que li ñuy wax de l'état ñoom mm-hmm. offense seen guide religieux seen guide religieux ñoom ci ñoom ci seen xalaat seen gët ak seen gis-gis mm-hmm. moo leen gënal ñë képp ki nga xamante ni moo moo ngi fi maanaam nit alof day wax ne mm-hmm. nit boo ko xeebalee sëriñ bu jàppee ne xeebal nga ko sëriñam lu mu la def yaa ko tooñ bu jàppee ne it xeebal nga koy waajuram lu mu la def yaa te nag boo nekkee biir Touba ay ndogal ndogal jóge ci borom Touba. Mhm. nga xam ne moom moo nekk borom Touba Sëriñ Muntaxa moom tamit mu nga xam ne mooy borom Touba. donc ndogal ya jóge na ci moom te ndogal ya la cay la cay am ak cëppaandaw loo xamante ne ni waa Touba dong ñoo cee jariñu la. ndax bu ñu aménager marché bi ngir def ko mhm. mu gën a yaatu mhm. ñëpp jot ci daanaka lu loo fekk ñu defar ko ba mu baax am na bañ koy yàq ba ñuy yàq la fa nekkoon am na ñu ca yàqule. loolu moom et puis Serigne Mountakha Mbacké jàpp naa ni wala sax ñëpp xam nañu du lor kenn. du lor kenn dara li nga xamante ni dafay lor nit amaana kàddu yooyu mu yi tey su demoon wax ko ci euh, teggin. wala sax mu fexe ba sëriñ bi euh, jot yooyu lay kàddu sans temps mu mu mu offensé kenn peut-être mbir mi du demee nii ay defe naa ni euh, vidéo bi démb boo ko gisee di nga xam ne ni regretté na lool li nga xamante ni yëkkati waaye mën nañoo koy wax xolam moo egg woon foofu peut nga tiim sa alal ñu koy yàq neexu si xol mais ak lu mu ci doon rek nga ànd ak sa xel te xam ni sëriñ Muntaxa moo joxe ndigal li ndigal moom bu jibee rek ndigal nga xam ne ni murit ak ndigal jëfe longue histoire la gis nga que sànq marché fii nii Dakar amoon ay mhm. échauffourées yu metti mhm. yu amoon diggante ak ñi nga xamante ñoo di commerçant yi ak takteer yi mhm. ndax lan euh, ki nga benn nit moom moom terrain benn nit moom moom terrain xam nga rek tey par exemple man Jérôme ma jënd sama terrain fii nii Géejawaay fu mu nekk ab bayal wu yaatu ay maire ñëw ne ma fii de dañ fi bëggoon lal di fi jaay ak affaire yooyu noonu man leen amul problème maire yi ñëw di jaay maire di jaay fëgg jaay di jaay borom ndékki bi ñëw di jaay kenn ñëw teg cantine kenn ñëw tàkk ñoom dañuy dem ba dañuy yaakaar foofu ñoo ko mm-hmm. moom alors que moomuñu ko mm-hmm. propriété privée la ñoom yoon yeeg tali yi tamit noonu la parce que fi mu toll marché ak euh, la nga xamante ni moo seq moo wër Touba moo yoon yi gën a yaatu mm-hmm. mbedd 30 yi moom la sëñ bi di yaatal def ay yeneen mbaar yoo xamante ni jaaykat yi dinañ fa mën a nekk biir mbaar yi nit ñi danañ fa mën a jaar di dox te kenn bu boobaa loraange du am ci diggante. nit doomu aadama ak moroomam euh, euh, presque temps yi doo génn semaine bi nga xamante ni nee nañ la lakk dafay tàkk gis nañ Dakar installation yeeg mel noonu day inondé ba ba mel ni Dakar xoolal Touba mbedd yi nu mu yaatoo bi da nga naan sax foofu la maanaam la fois passée sax bi marché Ocass di tàkk sapeur yi dañu amoon problème pour fay ko parce que parce que installation yi jaar mm-hmm. jaarul yoon mm-hmm. taqale la tàkk mm-hmm. taqale mu tàkk taqale mu tàkk léegi nag bu jéyee amee ña ca yàqul rek ñooy bëri léegi nag sëñ bi ci yooyu noonu la la la teg ay mhm. programme ak waa mhm. Touba ca kanam mhm. ne dañ koy dañ koy dañ koy daal di changer di daal di jéem ay pexe donc tamit boo yoree kàddu tamit di wax donc day baax bu baax a baax nga xam la ngay wax ndax wax ba lu fetal la comme ni ni ko Jérôme waxee doy na waa moom euh, daal moom moom noobul moom ci kàddoom ni Touba amul usine amul dara li nga xamante ni peut-être ndaw yi mën commerce rek moo fa mën a dox mais loolu aussi dëgg la mais soo koy wax nga ak sa xel xam ni ndigal ni euh, ci Serigne Mountakha la <laughs> jógee Touba Serigne Touba mooy boobu loxoom état wu Sénégal mënu ci dara sëriñ tu tu euh, sëriñ ah, Mountakha ma fa nekk mooy président wu Touba donc lu mu fa bëgg mooy am ak lu mu ci mënti doon rek nga euh, nañ ci ànd ak yar bu ñuy wax ak suñu kilifa yi boo ko ci boo ko ci aussi tamit gis nga li tamit aussi dañuy ñaan tamit ñi nga xamante ñooy kilifa yi ah, bu ñu fàtt tamit su nekkee xam nga ñoom affecté woon nañ leen aussi mhm. tamit mais su pour yeneen cas genre su amatee aussi su nekkee joxuñu ñu préavis leen surtout tamit wàllum recasement mhm. dafa am solo ki nga xamante tamit investir na xaalisam jënd say mhm. ñu ñëw toj ko tamit yàq ko toj te doo ci euh, yu bëri am nañ ko ñoom seen diggante ak ña Euh, euh, doy na waa moom moom lay di euh, ki nga xamante ni mooy noobu li ko masaw li ko dal metti na oto ak alal dafa sax ci xoos ñu ko lakkale yi dafay metti waaye beneen yoone rek mu daal di na ci daal di dox ay jéego ñu wax ci leneen Azoura nekk tik tiktoker nekk it militant wu Pastef ginnaaw bi nga xamante ni <laughs> tegoon nañu ko loxo moom la di Azoura dafa yëkkati woon ay kàddu rek ne ñi di force de force yi dañoo bëggoon a faat ki nga xamante ni mooy leaderu Pastef bi de mhm. Ousmane Sonko ci ab vidéo bi nga xamante ni daat nay fuité ci loolee nag lañ ko daal di teggee loxo jamono ci tool yi nag nañu koy daat mooy retour de parquet maanaam delloo nañu ko ca kaso ba. gis nga waa ji. nugu siin de ah, xam nga man xam nga man xaw ma ko woon sax. Azoura Fall man man sérieusement. kii la activiste la ak boo gisee euh, nga xamante ni mooy nekk si ginnaawam du yor drapeau bi la. non en fait non même pas sax sax parce que man yàgg naa ko gis ay vidéo yàgg naa mhm. dégg ay commentaires am mhm. mais li Mm-hmm. xam nga net ne comme ni ma waxee soo xëree si nit. xam nga mm-hmm. sànq dañ ko doon ci sëriñ bi. Mm-hmm. soo xëree si nit des fois wax li nga xamante ne ci wàllum yoon ak a amuñu yërmande yi kenn. ay wax yi rey soo ko waxee nii. Mhm. man mi ko répété sax mën naa ci am problème. vraiment <laughs> ci am problème donc bii li ci am yëpp gis nañ ko. Mm-hmm. ah vraiment maa koy masawu de ndax kenn ñaa kasa moom ñaanuñ ko kenn. mais vraiment yaakaar naa su fi jaaree aussi dafa gën a dalaat. et ñoom comme la wax rek xaw ku ñuy seet da nëbbatu ñoom ñoom la wër instant bii ñoom ñoom ñoom il ñu ne. ah rek ñu jël leen taxañ leen ci kaso bi donc nañuy euh, nañuy nañuy nañuy jéem a xam waa waa Pastef yi miin nañ ndungu siin trop <laughs> ne instant bi que damay raw est que ay militants wu mooy mooy ci kaso yi fees nañ fa dell bu ñu koy lim fii daga naan waaw xanaa ñi ñoo feesal kaso bi mais bon euh, politique moo demee noonu en général opposition opposant bi nga xamante ni moo gën a faax d'habitude ay militants wam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy sonn ba tax na daal mi ngi noonu di ko ñaanal mu yàlla génne ko foofu nga xamante ni foofu la daal di nekk zéro mhm. ñu daal di dem ci mbirum sport. Lionel Messi daat nañu koy euh, rek tabb meilleur joueur deux mille yi nag ah ah. ma ne kii meilleur. meilleur joueur de l'année en deux mille vingt deux. en deux mille mhm. kii kii mooy. yoon daal xaw ma nu mu ko mën a waaye sax jël na lépp bu benn benn waay nee na ma. Messi Messi bu góolu woon sax jël jël meilleur meilleur. gardien mais gis nga xam nga lan la xam nga lan nag ma koy aussi. Mm. ñii nañ bàyyi caaxaan. ah Messi da kaa waxuma ne dañ ko mérité wul ma FIFA lay wax nañu bàyyi seen yëf caaxaan seen yëf par par parloo yi ñuy def ah, ah, ah, gis nga seen FIFA the bi nii mën nañ ko organiser avant la coupe du monde mën mm-hmm. nañ ko organiser parce que ça couronne le meilleur joueur de l' année 2022 imaginez 2022 bi mu commencé kañ la mm. en plus su nekkoon saison bi lañ jël sax dañuy wax waaw su nekkoon saison bi lañ jël. kon joxe nañ ko depuis mois de juillet comme ni ko France football def ci ak ballon d'or bi. Mm-hmm. donc soit on couronne le joueur à travers la saison. wala on couronne à travers l' année. Mm-hmm. année bi nag Lionel Messi doo ma ne coupe du monde rek nga jël FIFA sa bés daal koy yëkkati na ko jëlee yaa ko moom. nga bàyyi des. mais nañ ko wax nañ nañu waxante dëgg. donc suñ ko defoon su nekkoon ñoom nañ parce que ñi ko mérité bëri nañ tey Sadio Mané mënu ko génne ci ñi ko gën a mérité mm. Benzema mënu ko génne Mbappé actuellement man personnellement su ma ko doon jox Mbappé laa koy jox mm. dama la moo ko gën a mérité su ma tey su ma doon ne Mbappé la parce que moo ko gën a mérité mm-hmm. suñu nee meilleur mm-hmm. désolé c'est Kylian Mbappé dem na coupe du monde def meilleur buteur te meilleur joueur sax moo ko waroon jël mm. ñii ñoo xam nga rek ñooy xool seen tànneef FIFA moom lépp luy trophée moom Messi rek moo ca baax donc côté boobu tamit nañ ko nañ nañ wax léeg-léeg xam ne mooy nekk dëgg. nañ ko wax côté performance ren 2022. munoo mm. teggi Kylian Mbappé. vraiment Paris Saint-Germain mi mi leneen Messi nekk parce que ci coupe du monde bi wane bu baax su football ñoom du ñu gagné. su nañu waxante dëgg. vraiment en mi ngi noonu daal euh, moom la ñu ko daal ah, di rek euh, tab ba tey ci wàllu sport la ñuy daal di dem kan u bi euh, jamono ji ñu yi nag suñu gaynde yi dinañ daal di rek xam nañu jamono ji kan la ñu war a daje ci quart de finale yi ñoom mag ak waa beneen la. waaye dañ ñi ma gis ci beneen moom ñooñu. en tout cas moom sama xel dal na si ñoom. Eh, eh, dama lay wax nag baalu beneen dafa saf. beneen safut moo ñooñu <laughs> du saf de mais ñi ma gis ñi ñooy beneen waaye. xam nga man seetaanuma seen match. Mhm. pour dire vrai c'est tax temps yi ko bàyyi nag. ñoo ngi may may defee ko bàyyi temps yi ci politique laa gën a nekk. Mhm. mais ñi ma gis ñooy beneen. ah ñooñu de Ibrahima ah Jibi. waaw ah. magoo leen de. waaw mais mais mais nag mais nag ci côté côté football bi yaakaar naa ne euh, sunu sunu gaynde yi duñ ci duñ ci am duñ ci amee la nga xam ne mooy problème ah en daal ñoo téye football bi ni nañ ko gën a téye rek parce que ñu ngi fréquenté seen i faculté de responsabilité ci li ñuy def nii te buñ teggiwut seen tànk moom vraiment Euh, mën nañu mën nañu mën nañu sax jël jël jël coupe bi daal incha allah yàlla baax na ñoom dañu koy jël sax man am naa ci yàkkin duñu fi fi ñu teg seen tànk ni suñu ko bawul ah xam naa ne ah, daal ah nañu ma booy suñu ak égyptien yi dal xam naa ne moom <laughs> dañu kuuf mala kuuf mala coach bi mu ngi doon laaj pourquoi les cartes <laughs> ñu daal di koy ñu daal dem ci lu nga xamante ni moo soxal mbirum people euh, dooree ko ak xibaar bu tiis tiis tiis euh, ki ñu naan frère du groupe Touré Kunda ñu gën koo xam ci Ismaïla Touré dafa daal di génn àdduna ni ki démb ci euh, suba ci doonu France waaye nag malheureusement corps bi du mën na ñëw fi nga xamante ni mooy Sénégal moom la nag nekk chanteur bi nga xamante ni siiw na lool file ci doonu Sénégal nekk monument ci li mu doon def gis nañu ba mu génnee yu mag mel ni Youssou Ndour Mor mhm. ah, ak ñeneen ak ñeneen daal nañu koy rendre hommage moom mi leen nag génn na àdduna ni kiy démb ba tax na équipe bu 2STV yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana bu baax a baax xam naa ne yéen ay gone ngeen xamoo ko ah, man xaw ma man moom génération 2000 ah, laa doon parce dama ko daan déglu parce que defoon fi benn tournée tamit bu am solo ñoo ko doon wax defoon nañ fi benn tournée bi nga xamante vraiment mhm. euh, askanu Sénégal yi bëggoon

di fa même xibaar yi people yi dañu koy daal di jeexalee Fa Aydara nekk influenceuse euh, ay abonnés toll ci deux millions sept cent euh, sept cent mille abonnés moom la nag ginnaaw bi nga xamante dafa doon jàkkaarloo suñu naataango dafa daal di yëy yàbbi jëmale ci leaderu Pastef bi la di Ousmane Sonko mhm. mel ni nag euh, jamono ji ñu bëri ña ngay lam-laami nag femme yi jamono ji am na fu mu daal di ndax yëkkati na ay kàddu di xam ne ni Ousmane Sonko lu muy dund ci voilà xalaatul Ousmane Sonko en personne mais ay doomam lay xalaat ndax saa su nekk ñu yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci sa der saa su nekk ñu lay jéema a fexeel mu mel ni daal kàddu yooyu yi nga xamante ni Fa Aidara euh, yëkkati na ko lu daal di nay rek nag euh, euh, viral ci réseaux sociaux yi mm. ndax ñëpp xam nañ ñu Fa jamono ji influenceuse bu mag la mm. ñëpp daat nañu koy ràññee surtout ci réseau social bi di TikTok moom yëkkati na ay kàddu jëmale ci leaderu Pastef bi nag jàpp na ni daal dañu ko daal di mi ngi daal di xalaat ay doomam ndax nag benn nit saa su nekk ñu yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci deram wala sax di ko fexeel mu ne loolu moom daf koy daal di ñaaw ndax ay doomam moo tax. gis nga faam faam maa ngi lay nuyu. mais Fara man su ma la mënee conseil benn affaire laa lay wax. mu génn si politique mais pourquoi muy génn si politique dama lay expliquer mais moo tax mu wax. ah comprendre naa ko aussi sóoraale njabootu ko nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko. gis nga li nga li wax nii nii. Mhm. man waxoon naa ko fii ci Barthélémy Dias. waxoon ni ñuy xëree ci ni ñuy defee politique ak Guy Marius Sagna activiste moom mhm. presque chaque deux mhm. mu dem kaso dama naan ñii est-ce que bëgg nañ seen seen njaboot parce que ñoom genre ñuy sonné ci askan wi tout ça est ce que askan bi nañ leen ko fay mais politique mooy loo xamante ne jamono ji nii mhm. soit tu es avec diw wala tu es contre diw moo fi am si tu es mhm. avec diw ñi nga xam ne ñoo ngi contre kooku dañuy téye seen bopp mhm. su nekk seen abonné dañuy téye seen abonné su nekk seen xaalis dañuy téye seen xaalis su nekk dañuy seen entreprise dañuy téye seen entreprise te am nañu ñii ni réseaux sociaux yi moo leen di dox ak ay partenaires yi nga xam ne moom la ñuy signé peut être ah. avec les télévisions wala les les waa publicité et tout ça les les les les maisons de production et tout ça léegi su fekkee ñooñu ñi nga xam ne nguur gi dañ cee teg loxo maanaam li nga xamante moom la doon liggéey lu ci bari dañ koy dañ koy daal di ñàkk donc côté boobu am na am na ko ko wax alaaji rafet maa ngi koy maa ngi koy nuyu suñu ah, suñu tonton jo wax na ko ne moom depuis bi nga xam dafa jël position ci Ousmane Sonko lépp li nga xam amoon na ko da ñàkk exemple la exemple la en fait en général ñoom ñoom ñëpp tey nanguwuñu wéy wala nanguwuñu àddu ci wàllum politique même boo ci amee invité sax du ñu nangoo wax ci wàllum politique. mais man je me dis que ni euh, gis nga Jérôme ñàkk sa ay peut-être euh, lu nga xamante ni peut-être waroon nga ko jot ci état wu Sénégal wala waroon nañu ko def. Mhm. bu tax nga wax dëgg dëgg moom. dëgg moom waaw voilà effectivement. donc xaw waxuma nag kenn li mu wax ci Ousmane ko loolu mooy dëgg je sais pas mhm. ay influenceurs lañ dañ leen a dañ leen a soxla. te bu ñu waxee ñëpp dégg leen mi ngi noonu. tey jii bu ñu waxee nit yi mën nañ leen dégg donc man man dama contourné ne influenceur la waxuma wax wala waruma far non mais dëgg bu fu mu am waxal. Mhm. après nag euh, li la siy fekk même lu mu mënti mel rek na nga fekk yow nga sa conscience tranquille que ne li ma doon wax dëgg la mais neutre bi ñu neutre parfois day dem ba soof parce que problème day am Sénégal di tàkk doo gis benn influenceur bu wax. vraiment mais mais loolu ah, lan la ñuy jëriñ. Sénégal man de ah man man nag xam naa ci kenn koo xamante ne vraiment. je mais rare non du ñëpp. rare ngay gis je le suis je le suis je le suis. ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax mag di mag di maa ngi koy maa ngi koy nuyu sunu sunu sunu sunu confrère boobu. man mhm. jàppee ma ko sax mhm. comme un influenceur comme les gens le disent man dama ko jàppee koo xamante ne c'est un acteur social. Mhm. parce que mag di ubbali ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko wàcc waayam parce que moom du xaar comme ni nga ko waxee moom da lay reetaanloo. mag di di la jox information. waaw mais mais yow am jaw ko ca ay jëbeem <laughs> vraiment effectivement Jokko Job kenn ñëpp gisoon nañu ay début Jokko Job dafa doon wax dëgg. di reetaan boole ci di reetaan ak comédie comédie te nit ñi dañ ko doon déglu. ba tey jii non ba tey. non moom essayé sax moom. désolé Jokko Job moom instant bi kenn gisul ko. xool fi mu mais xoolal information yi mu doon joxe tey.

anam bi nga xamante ni ñoom la nguur gi yore réew mi ci wàllum luubal ku ne gis na ni Aliou Sall jox ma suñu 400000 cent yeneen ak yeneen yi nga xamante ni tey mi ngi noonu léegi suñu demee ba tey ci réew mi gën a pire ñu gis que ni réew mi tey la gën a yàqu ah. luubal gaa ngi mel ku sa bën saan bëree gisatuñu ko ngeen ne peut-être dafa nekk si yeneen ak yeneen moo tax jawar jëf tey su tolloo fu mu toll askanu Sénégal dañoo sentiroon li muy def moo tax tey ñu dooleel ko ba mu egsi fii donc man gisuma lu tax mu ne voilà gis am na benn vidéo bu nga xamante ni mi ngi ci doon wax man léegi nekkatuma ci politique nekkatuma ci léegi mais loolu c'est parce que peut-être am na lu ko arrangé. waaw ah léegi am na am na lu nga xamante ni peut-être li mu doon def. xam nga jaara sama bopp jaara sama waxee ñu jàpp bàyyi la mais sama boppam la gënal nekkul bañ naa. ah yéen loolu ngeen wax mais xam nga comprendre naa mais ah. taxawaay da këccëb ak ñuy mel ni moom man dama koy comprendre bu baax. non c'est vrai c'est vrai parce que des fois taxawaay ba ngay am la lëggéey la da koy jox àqam yow tey mën nga fay toog def sa liggéey comme il le boo ko li nga xam ne say conviction personnelle la. <laughs> d'accord des nga jël sa liggéey tamit boo laaj say conviction personnelle moo gën. Mhm. parce nga xam ne kii ni dëggu na ci li muy def mais li nga xam ne moom liggéey bi laaj da koy def ba pare. vraiment soog indi sa liggéey ah, ngay xool. ah sa intérêt personnel ngi ci sa intérêt personnel moo ngi ci la am ci su a <laughs> euh, euh, li ngeen wax amul problème en nekk nag jàpp li mu wax. xam su ñàkkoon lu fay soo affaire dara ñàkkoon li mu am moom mu des ak yàlla da xam ne yàlla ñëpp la fi nekkal. Ah, <laughs> en waaye tamit xam nga mën na ci am problème parce que déjà dañoo nekk ci réew mi nga xamante ni réewum defante la ba nga xamante ni peut-être euh, mën na ci ñàkk ay ay partenariat mu ngi noonu ay gis fenn sax ñu ne ko yaa waxoon li ci Sonko parce que réew mi foofu la toll moo tax en général influenceur yu yi nga xamante ni fës nañ wala xàmme nañ lu ñu àddu jëm ci wàllum politique parce que ñu bëri dañuy am link ak nguur gi donc mën nga wax jëm fii jëm côté bee ñu ne la voilà yow yaa doon wax politique bi daal dafa nekk loo xam loolu te assumé ko te manifestation amoon na fi mu yor drapeau Sénégal démb taxaw ñëpp jël ko. mais loolu la Jérôme li nga nekk boo ci engagé. wane ko ses responsabilités loolu kese la. Eh, li mu nekkoon xibaar yi nga xamante ni moo fi jot a ruusee Jérôme. amoon mbégte jàkkaarloo yéen <laughs> dañ ko dañ ko dañ ni ñu ngi euh, teewlu seen kàddu di leen wax mhm. kenn rek dañuy daal di dem ba suba incha allah. incha allah bàyyi leen ngeen wéyal li nga xamante ni mooy seen kàddu. ak seen balaa maa dem naa mhm. naa la jox ku ci mel ni Cheikh Tidiane Ndaw ñu ngi koy mhm. nuyu Babacar Diop ñu ngi leen ah, di nuyu Omar Dieye Cheikh Tidiane Ndaw comme je l'ai dit tantôt mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi doon participer ku ci mel ni M7 audiovisuel mm-hmm. sànq ngay wax ci euh, groupe Touré Kunda nee na seen seen génération gi yéen xamuñu xamuñu ñooñu ñun ay wàll ngeen xam waaw mm-hmm. <laughs> ah, ñun ancien génération gi nag dan xam nañ ko du di mag dan dut ay mag loolu lay wax ci <laughs> merci gis nga li ma la doon wax ci Soxna Jaara ne la eh, ci euh, information moom gis nga nag na mu ci mel xool xoolal jaar na sama kanam caméra bi de gis nga la ma la wax ci Soxna Jaara information yi am na solo lool ñu koy jaajëfal. léegi d' accord ñu ko waaj teel soxna jaara bu sela woon borom poroxaan ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci leeral yi nga xam ne jot na ko andi ci information yi tey teg ko ci seen kàddu am na solo waaye am na solo loolu de vraiment ñu ngi koy remercier donc on fait une petite transition comme quatorze heures sax jot na ah, on fait une petite transition ñu dellu soit ci ñaareelu pàcc émission bi mhm. commencé jëlaat appel yi ginnaaw bi nga xamante ne jël nañ suñu dose d'humour ak aussi d'information bi fi soxna jaara jàlle su ko mooyee rek euh, régie donc su nekkee kii rek ñu dugg daal di dugg ci deuxième partie bi duwee li nga xamante ne moo di waxtaan bi